ak pëjlaay bi amul lu ñu sañtee ak pëjlaay bi du ñu woy pëjlaay dañoo woy woy woy woy ba woyatuñu waaw moo yooyu nag dañoo sañte may ko rek ah, ah bu baax ma jëkkër ju xaataara jooju Mohamed bàyyi yànde séeri may rab kan ak riis waa awa waa awa nag tey bari jikkoo moom ñëw rek dikkale waaw waaw yow sa greffage baax na xam nga ne yow yaa ma wax loolu ndax yaa fi tudd mbirum greffage ak frisé Ndio lori yako mo. Suma ko mon koy mo sama jëkkër yu neem ko jógee ba Europe. Hmm. Sama doom maam bu xataara ya, boobu. Yow nag may nga ma occasion ma xëy yow ñaar baax ba sama tey yaa ngi naa ma lu sama xol bi woo ñëw fi xamoo ko. Sëy naa sa der bi nekk ci bu am classe am personnalité bi nga doon ci dëkk bi. Looy doyee bagage su ya. Zeyna avant may commencé yow di la lima. yow yére bi ana ana tubayam àndal yow. jupe ma ngi defal nank parce que man awa sa waxuma lool de dani lii papaam moo ko jëlale woon Europe. papaam daa mos a dem Europe. yaay moom moo jaaxal. man su waxoon lépp sax man bàyyi ay wax mais papa moom kay la nekk Europe ba pare nee na lii dala koo àll fois bi nga xaw koo yàq deuxième bi nga jël si ko ci la ko ma ci la ko maye. awa bu rafet nga may wax de. awa sa may ma ma ñëw ci frisé bi frisé bi nga tegoon soirée pët laay. plus Mouhamed yónnee ci awa de nee na benn copain moo ko gindal jour boobu nga dee ni balaa ngaa balaa balaa di nga teg frisé bi ne ko man loolu fekkee ma ko ndax man damaa jaar kër zee jël leen ñu dem ci soirée ba yéen naa ko bàyyi ngeen di solo yow pël bu rafet man musuma ko abri ah. sama sama boobu ne moo ko yónnee bi waaw li may waxatee gi nii kaay kaay lii lan la lii lan la lii lan la lii lii xam ne sama papa ma ko jox cadeau anniversaire Lamine Gaynde lii ah? sama papa jooju mënoo di boobu lii de teg teg ak li awoor décrire teg teg nag nee na montre bu gris bi. ñaari ci loxo bi bu cadré bi bii du bu cadré kon bii la. Hmm, ndax bii bii de Omar Koule ma ko jox sama anniversaire ñaari yëpp man awoor de ñemeetu ma ko. ah. ko ci loo ne nangu naa amul ci loo nekk de ba nga jugee sama kër fii nga jubal si. dama laa gëj a gis nag. gëjuma gisante yow. yaa ngi am jàmm yow mi laa amul may waxat. parce que yow Zé wuy ma wuy ma tey defal nii rek Zé ma yow man a yow après dinañu eggale suñu waxtaan. yowee yow buñu dalee ànd ba tey buñu nekkee xale ba tey ñu ànd. bu fi sotti wax bu yow. Ah, ma ma ma ma ma ma gis ngeen ci naaj bu bi laa jugee sama kër ñëw fii kii sama kër la ñëw fa la añee ma xelal ko ataaya mu naan lawal xaaru fa sax deuxième bi ñëw ne ma li nga soloon soirée dambaay xàll ba nee na man li ma soloon eh, eh, eh, ma ma wax déglu ma déglu ma soirée dambaay xàll ba nee na li ma soloon kaw ba suuf yow yaa ma ko jox te loolu bi may dem di ko jëli sama tonton bi nekk Angleterre Alsane moo ma ko yónnee ma déglu ma déglu ma yéen gis nga yéen waa koñ bi ke leen a yàgg a bañ yàgg bëgg ngeen histoire ñu di jaxase ngeen di histoire yow la nga ko la yow la parce que yow léegi nga jógee sama kër waaw noppi la noppi la fa noppi la Boubacar kenn dama loo sol président du mouvement MDR la allo Boubacar waaye réunion bi fan la gëraal yu di ñëw samay xarit a nekkoon ci koñ bi ay seytaane bëgg a jaxasee ma ne xaaral ma dagale leen lijjanti leen balaa problème bi di gën a yokk mais yow xam nga ne loo nekk maa ngi ca déet déet kebe bul bul kii bul bul bul continuer bul bul bul commencé te ñëwaggu ma may secrétaire général munoo commencé te ñëw ma maa ngi nii di jóg di dem maa ngi nii di jóg di dem calme naa leen ba pare maa ngi nii di jóg di dem waaw kay. voilà. li wéykat bi naan ah li wéykat bi naan noo moytoo